voilà salaamaaleykum beaucoup Sénégal man la Djibimbay, président FESAC du département de Podor Mouy fédération nationale des consommateurs du Sénégal section département de Podor tey dañu am naqar dañu am naqar ak métit tey moo tax ñu dajé fi ci buntu CMS ñu ànd ak collectif bi nga xamé ni ñom ñoy bëgg taxaw pour xex lepp lu nga xamé ni lu jubadi la ci euh, CMS et ba taxna na tay ji mom comme nima ko waxé rek nakar bi ñu am moy mbir mu nga xamé ni biñ koy andi ci Sénégal ñepp xam nañu nu mu juddo ñu dajalé ay samakat baykat ay ñaqu sàmmkat ay ñaqu ouvrier ay ñaqu groupement de femmes fexé ba taxawal caisse bu melni ci aduna bi yépp mu def lu nga xamé ni lu mucc ayib mais dafa mel na tey jii dañu bëgg këpp yaakaar boobu loolu nag tey moom la ñu taxaw ni il faut loolu ñu ñu jóg ci ndax mënuñu seetaan lu nga xamee ni luy yàqu mu mel na ni ñun bokkuñu ci te suñu yëf la ndax tey dañu dajale alalu ñu def ko fenn jox ko ay nit ñu dénk leen ko ñu dem ba ci biir ñu gis ni niñ koy doxalee mu ngi jalgati mi ngi wàcc yoon loolu nag moo wane ni il faut ñu daje fii ci buntu sms di wote walu ndax nit ku nek amna fo wara meuna jëmele sa gemign pour wote walu ñun ñi nga xamé ne ñi ngi nek ci département Podor li ñuy dund ñepp xam nañ ko danaka sax dañ dem ba nga xamé ni dañu xawa baisser les bras ndax ñu ci bare ñi ngi xalaat retirer sen xaliss ndax ñi ngi dégg ni sms dafa wara grève problème yu bare ñi ngi fi waaye loolu nag ñu nit ñu ni kiñ ci war a interpeller gannaaw njiitum réew mi moom mi nga xamé ni lepp lu fi nekk ci kom kom ak lu fi nekk ci alal ak lepp mom moko wara sam ñukoy wo mom ak ministère de finance ñukoy wax euh ministre Abdoulaye Daouda Diallo ministre des finances et des budgets ñukoy interpeller que li nga xamé ni moy le CMS di dund nañ ci jël ay matuwaay nañu xool li nga xamé ni ñu saytu ko ba nga xamee ni ñi nga xamee ni yaakaar biñ ci amoon yaakaar boobu dellu te bu yaakaaruñ ko fenn fu dul ci président de la république ak ministre Abdoulaye Daouda Diallo